tey ci teeru bi ngir lancer benn produit bu ñuy wax masse commune internationale bi nga xamante ni dafa bokk ci li ñuy wax PMI PMI nag dafa nekk produit boo xam ne Sénégal yàgg nañ ko xam waaye man ci samay gëstu euh, bi ma gisee ni dëkk bu mel ni Mali rien que si PMU kese dinañ def presque deux cent milliards par an loolu moo ëpp ni LONASE di def ci produit yëpp ma jàpp ni loolu jaaduwul bi ma laajtee ba laajtee laaj pariyeur yi dem ci dem si ñoom waxtaan ak ñoom dañ ma ne li tax ñu bari bëri ñu PMU xaalis bi ñuy fayeeku dafa wàññeeku bi ñu waxtaanee suñu biir LONASE ñu ne nañu fexee xool naka la ñuy améliorer gain yooyu pour parieurs yi di gën a mën a fayeeku xaalis ñu ne ñu masse commune internationale bi mooy pexe bi mooy solution bi ci noonu la ñu waxtaanee ak sunu partenaire bi nga xam ni mooy Honoré bi moom mu jël def ay jéego ci wetu PMI bi nga xamante ni moo ŋànk produit bi ñuy wax masse commune ñu mën a waxtaan ak ñoom ba tey ñu nangu ànd ak ñun ngir commercialiser masse commune fii ci Sénégal ci gàttal loolu moo waral li ñu fi dajale tey li ñu fi dajale nag du dara lu dul euh, dëgg la naam yokk koom-koomu entreprise bi nga xamante ni da di Lonase waaye ci yokk koom-koomu entreprise bi di Lonase dañ ciy xalaat aussi suñuy client ndax suñu client yi bu seen xol seddee rek day mel ni liggéey bi dina gën jëm kanam moo tax ñu indi leen produit bi nga xamante ni masse commune international lañ koy wax muy PMI e boo xamante ni dafay may parieurs sénégalais yi ñuy fayeeku même gain que parieurs français yi wala parieurs yi nekk États-Unis wala ñu nekk Autriche donc loolu firnde la ci ne suñuy client suñuy parieurs dañ leen teg fu kawe kawe kawe te suñu mébét suñu xalaat ak suñu yitte yëpp mooy fexe naka la ñuy seddalee seen xol ci li nga xamante ni ñu ngi koy jëflanteeg waa Lonase loolu encore une fois may bamtu ko loolu moo ñu fi tax a indi moo ñu fi indi ngir ñu mën a lancer masse commune bi nga xamante ni xaatim nañ ko diggante euh, LONASE ak PMU nga xamante ni soxna si teg muy madame Doublé moo leen fi teewal moom mooy kilifa gi foofu ci France ànd ak monsieur Verlet waaye ci liggéey boobu dañ ci ànd ak sunu bi nga xam ni mooy Honoré Guéming euh, mi nga xamante ni moom moo dox diggante LONASE ak PMU France loolu laa amoon lu may wax ci wolof soññ di soññ sama bopp di soññ Lonase yëpp surtout ci wàllu communication bi ci wàllu marketing bi ndax lu mel nii boo ko defee te nit ñi yëguñu ko du am njëriñ donc nañu gën a farlu au niveau des agences au niveau des points de vente ngir gën a mën a partager ak sunu parieurs yi information bi nga xamante ni dañ leen ko indil te mu doon loo xamante ni day améliorer euh, seen i gain maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf.